bonsoir à tous et à tous donc nous ngi leen di gërëm centre baax di leen di euh, euh, syndicat lieu mythique bu nga marché euh, presque fi nga xamanteni ni fi lañuy jaayé fruit yi nga xamanteni ni lepp lu nga xamanteni département de Pikine euh, région de Dakar ak département de Pikine bi yépp fi lañuy jëndé ci fruit yi nga xamanteni mom lañuy consommer syndicat nek lo nga xamanteni ni ci histoire Pikine nit ñi dañ koy faral di waxtané lu bare bare bare bare tay ji ñu nek ak délégué suñu Abdoulaye Ndiaye donc yow yaay délégué quartier euh, ci marché syndicat waaw ñun day noo ni day marsan de kan day marché bu jafé ci marché parce que affaire bi bam joggé ba tay délégué quartier yi duñu jog di ñew di and ak ñu nuy sensibilité nit ñi parce que délégué Mor Seye mu ngi ni délégué Aliou Fall léegi la fi joggé te ñoo ñoo seq gox bi nit ñi nak noo ngi wax ak ñoom ñu ngi yor seeni ndox di raxasu ak seeni i kon bu nga xamé ne yeen itam mouvement bi nga xamné ñooy taxawu Pikine ñëw nañu indi seeni saabu seeni eau de jàppale nañ nu li nga xam ne daal moom la ñu bëgg mooy askan wi yëpp nañ jàpp ci set tey mooy ne yoon te bi ndax li nuy musal ci jàngoro ji président da koo wax am ci yéene waaye askan wi yëpp ñoo war a jóg gunge ko ci loolu fi lan toll saa nu xëyee nun daanaka amatuñ liggéey di sensibilité nit ñi xamal leen ne nan mayu jàngoro ji ndoxit na fi am ku dugg na raxasu ku génn na raxasu yor sa sel diw ko ci say loxo ndax bokk na ci lay aar doomu aadama du ba man a koo ak ko am jàngoro ji. délégué gis ñu ne syndicat gis nga ko na mu meloon presque dafa kii euh, ak tayit bu tawee dangay gis ne ndox yi day bari lool tayit ñu ngi jublu ci wàllu nawet est-ce que euh, di ngeen désinfecté marché bi bu nga defee yoo yeeg yenn façon feebar yi fii juddoo yëpp mën a mën fee jógee. xam nga ndox mi moom wàññeeku na sax ndax assainissement dafay am waaye bu dafa matut fi assainissement bi yem foofu ndox mi da koy jël waaye fi nga xam ne yëggu fi moo waral ko fi jaar gi syndicat tooy yooyu itam noo ngi ñaan bu nu yeggee ci jamonoy nawet service d'hygiène def na mu daan def parce que ñoom moyen moo leen di manqué waaye bu ñu amee moyen nag maire jàppale nu ca dina ñëw pompe marché bi ba nga xam ne benn yoo ak benn weñ du fi daw bu dawee dana daanu ndax marché bi day marché sous région camion yii di ñëw yii a ngi jóge Guinée yii jóge Gambie yii jóge Mali yii jóge Burkina Faso yii jóge Côte d'Ivoire kon nag mat na noo jàppale ci li nga xam ne mooy pompe bi nga xam ne service d'hygiène da koy def ndax mooy tax nu mën a aaru ci yenn di yëpp noo ngi sant bu baax. waaw gis nañu aussi tamit keneen ne marché bi tam euh, su da bari na suuf tam ndax tamit du ngeen lancé appel euh, autorités yi nga xamante ne nii mbedd moo romb gis nga ñu ngi cay defar ba mu ba nga xamante ne suuf dootoo ko gisati ci Pikine ñoom ñu ñëw syndicat defar lu mel noon waaw loolu sax président moom waxoon na ci xalaatam parce que waxoon na ne dina defar syndicat ba mu mel nu dëppoo ak jamono defar jumaay Pikine ah wax dëgg yàlla noonu na dina ci boole syndicat bon noonu nañ ci waxtaan nag ay jamono waaye waxtaan boobu dafa mel ni taxaw na fii mu ne ñu di ko laajte appel ne ko pegeen ku ko bëgg a defar il faut syndicat bokk ci parce que buñ ko deferee nañ ko war a defere oto yi dugg ci biir bàyyi koñ wi jaaykat yi dugg ci biir ah ñu am station boo xam ne dañ fi def sunu mbalit dëkk bi dina propre dina set képp koo xam ne da nga fee ñëw di nga xam ne marché bi marché fourbe la li nga mën a jënd li ngay jënd gaare oto jënd li ngay jënd dem saw yoon loolu daal noo ngi ko ñaan président. est-ce que syndicat bi am na sécurité am na fi bu baax a baax. Eh, sécurité bi nag wax dëgg yàlla manqué na parce que commissaire mu ngi ñëw waaye mënul fee dëkk day ñëw dafi raafal bu ko defee waga yi nga xam ne ñoom bu ñu xiifee bu ñëwee dugg syndicat bi dinañ am lekk dañ am i mango dañ am i xooñ dañu am ay oraas ay yooyu lekk ko. ah te duñu ko mën a wuti fenn lu foofu lañ koy lekke ñooñu moo tax nu bëggoon ah sécurité bi dal moom wax deug yalla nak dooleeku. ko renforcer ñu gën ko renforcer. waaw mm-hmm. jërëjëf euh, délégué jërëjëf bu baaxa baaxa baax a baax euh, ngi lay ñaanal yalla bu wër wër wër di ñaan aussi tamit euh, pikinois yi nga xamni ñi ngi seetaan aussi ñu bàyyi xel ci syndicat syndicat nek na lieu bu nga xamanteni ci sem waxuma la sax pikinois waaye Sénégal dañ ko war di titéro ndax lepp lu nga xam mom lañuy consommer mi walu fruit te mom am solo ci suñu yaram fi lañ koy jëndé ci région Dakar yépp ma ngi leen di gërëm di leen sante pikin TV la won woon jërëjëf